xeex tilim aar suñu askan noonu la ñu duppee ñetti fan yi ñu jagleel waarum cet ci commune bu Wakam bile doxalin ngir ñëpp dugal ci seen loxo ngir ñu dakkal tuur grava nu mu la neexee sànni mbalit wala sax di jaay jën ci trottoir bi. gis nañ ne ci xar-xaramu Wakam fan yi mu ngi changé ci anam boo xam ne jegul baaxul baaxul ci wér gu baaxul ci environnement te loolu li ko indi mooy. ay comportement ay jikko yoo xam ne nii du jikko yoo xam ne nii yu tegu ci yoon la ndax ay jël ay gravats sotti ci mbedd jël ay jël ay branchement clandestin ñii bënn seen foos mu génn ñii vidé ci mbedd ñii lépp sotti mbalit nu mu leen neexee c'est des choses yoo xam ne ñëpp ñoo ko war a bokk ànd lëkkaloo xeex ci. maire bi di sàkku ci askan wi ngir ñu wëyal bile opération ne lu ko may dinañ leen teg ay daan. dañu bëgg bu ñu defaree benn gox ba mu set ñu continuer setaay boobu dafa am ñeneen ñu ñëw di ko bëgg a yàq nag dinañ jóg li ñu yoon may ñu euh, dal seen kaw. campagne sensibilisation bi délégué de quartier yëpp ànd nañu ci dal di koy taxawu waaye bi la dogal mu mel ni neexul ñëpp commerçant yi mer ba futtu takk ay brassard rouge indi seen doléance jébbal ko maire bi.